Mbaye Lambar ma ngay wax ci Mara ba ànd ko ku sàññ moom mi di Mbaye Lambar nee na Mara Niass wax na ma fi ne di nga accidenté ma gis ko danañu dagg saw tànk waaye itam wax na ma fi ne yow mbay Lambar soo wattandikuwul di nga xëy di yelwaani loolee lépp wax na ma ko fi mu métti ma loolu le naqari ci sama xol ba ma toog di ko jooy man kott man dong kenn yëgul kenn tinul waaye nag léegi jeex na fi dàq marañas ak li ma ko defal ci àdduna ñaata vidéo laa ko moom Mara Niass di ko ci waxal lu baax ñaata vidéo laa fi def di tagg Mara ci àdduna marañas léegi nag dafay wëlbatiku di ma yéene li nga xam ne moo di dee moom Mbaye Lambar ci boppam ci benn live boo xam ne moo ko defal boppam daal di génne benn téléphone di ci wan nit li nga xam ne moo di discussion bi dox digganteem ak Serigne marañas mu ne ko li nga xam ne benn bàmmeel bu ñuy gas di fa waaje dencub néew yónne ko beneen photo boo xam ne ab néew bu ñu teg ci jaatam la di ko waaje jëppal boromam loolee mu ngi firndeel ni wàllum dee lay wax moom Mbaye Lambar nee na Mara nag léegi daf maa bëgg a léegi nag ci gàttal dee la ma yéene comme waxal na ma lu nekk léegi fii mooy terminus bi léegi nag jeex na sama diggante ak Marañas dootuma waxati waxam lii mooy wax ji may mujjee wax ci Serigne Marañas moom Mbaye Lamara dafa dem sax ba ni dinaa ko porter plainte ci la woo ab takku der boo xam ne moom ci boppam mooy ki ko defal ne ko bàyyi lépp mu daal di jàll lépp teg ko ci loxoy suñu borom ndaxte yàlla mooy rey tey itam mooy dundal ab lenn loo xam ne mën naa dal ci kaw nit te bàyyeeku ci loxoy suñu borom moom mi di Mbaye Lamar ci la daal di couper téléphone ba daal di ak sénégalais ne leen man commandant Mbengue kott woon ak moom dinaa ko porter plainte ndaxte Mara Niass li ma def daf maa naqari ba fa kanamu yàlla fu nekk jaar naa fa ak moom lu nekk itam defal naa ko ko lu nekk itam jéem naa ko ngir Serigne Mara Niass moom mbay Lambar dafa mel ni ci boobu lépp vidéo am na ñoo xam ne sax gëmuñu la muy wax ñenn ñi dañu koo jàppe ab mise en scène ña ci def moom jàpp ne Mbaye Lambar dafay comédie wala sax dafa bëgg a génnaat xewaat gannaaw bi nga xamee ne dafa daal di fay ni ku dëkke Fayland moom mi di Mbaye Lambar dafa bëgg a génnaat defoon terewul itam maa ngi wéyal ci liggéey ba ma nekkoon ñu bare bare kenn ku ci nekk ak gis-gis ba nga ca amee doxaanu ma ko mooma doxaan Ngaaka Blindé la ñu gis ci benn vidéo boo xam ne soxnaam di fatal saw ma ngi ko cay njaay cekke di ko jël moom Ngaaka Blindé mu sëgg ci téléphone am nan ko kaay di nga ma wax ki ngay waxal fan nga ko toppee ak fan la la toppee Ngaaka di ko xamal ni ko doxaanuma ma ko mooy ki may doxaan booba léegi mooy insiste ci doxaan ma fatal saw ak Ngaaka Blindé loolee mu ngi firnde li seen diggante am nañu complicité donte sax rumeur bu ci nekk ñu daal di koy génn teg ko ci seen sëy terewul ñu ngay wéyal ci seenub sëy ñu bari itam doon njoxtu ne diggante boobu ne ndax dina mën a yàgg ndax dina mën a neex comme ni ñu ko yaakaare loole mu ngi wane ni ñoom ñaar ba tey am nañu complicité ñoom ñaar ba tey ñu ngi dund seenub mbëggeel ñoom ñaar ba tey itam ñu ngi respectante ñoom ñaar ba tey itam ñu ngi wéy di bégal seeni fans ak seeni followers ci li nga xam ne moo di ci li nga xam ne moo di ci réseau social bi rëg wala Sa kan nga ciy tànn Modou Lo tànn na ci ko ko gënal rëg-rëg nag di benn di mbër Sa Thiès itam di mbër ki nga xam ne moo di Modou Lo gannaaw bu mu daanee Ama Baldé ca Pikine te li nga xam ne moo di couronne bu roi des arènes am ba noppi itam teg ci ki nga xam ne moom moo di Boy Niang daal di téye couronne roi des arènes am moom mi di Modou Lo daal di nañu koy tàcc ñaari mbër ci ñi nga xam ne ay jeunes lañu Reug Reug wala Sa Thiès Modou dafa daal di choisir ki nga xam ne moo di Sa Thiès rakk ci Balla Gaye numéro de ngir mën cee faj aw meram ginnaaw bi nga xamee ne Balla Gaye numéro 2 le lion di Modou Lo dafa bëgg a fayu ab revanche la ca bëgg a def loolee mooy li tax mu daal sukkandiku ci loolu le ngir ne Sa lay bëgg a jël waaye nag ngir combat boobu mën a sotti faw rek Sa Thiès duma Eumeu ci combat bi nga xam ne moom la war a séq ak moom bu amee ndam ci kaw Eumeu ñu soog koo mën a jox Modou ñu sëgg bëre ñoom ñaar mu doon revanche boo xam ne xëy na Modou Lo bëgg na koo doxale digganteem ak Balla Gaye numéro de Rama Thiam actrice bu mag bile ma ngay wax ci dundinu comédien yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal yalwaanal kenn ku ci nekk ñu lay ketal soo bëggee faju wala nga bëgg kër goo dëkk mbaa nga bëgg a génn réew mi dafay metti loolu la ci ñoom moom Rama Thiam nee na la lu ñu metti la man Rama Thiam nag képp koo xam ne danga maa bëgg a defal lu baax danga maa bëgg a teral soo bàyyee ba ma faatu nga def ko baalu ma la lépp ma waaye di defal na ma ko defal ci jamono ji nga xamee ne ci lay dund waaye bu ñu ko defal mu ku ci jamono ji nga xamee ne ci laa dund moom Rama Thiam nee na li nga xam ne jël nañ ko comme initiative muy comédien bu ci nekk ñu utal la sa kërug bopp te tan bombe ak association bi nga xam ne moom la samp ñooy ñi ko fi teg jamono jile mu ngi koy rafetlu ba fa kanamu yàlla nee na ba ma dalee théâtre ba léegi yàgg na waaye lii musuma koo dégg musuma koo gis c'est la première fois ma gis li ni mel c'est la première fois itam ma dégg li ni mel beneen actrice mu ngi nii boo xam ne dafa daal di dàq ab animateur am ci biir këram muy bébé Aïssa benn animatrice boo xam ne dafa ñëwoon doon seq ak moom entretien entretien ba ba muy dem ba muy waaj a jeex ci la ko animatrice bi posé question boo xam ne daf koo daal di déranger wax ko ci ab Aïcha ndax ba tey da nga sëy wala ab célibataire nga bébé Aïcha ne ko bu ca àddu te sama wii privé la bu ca dugg ndaxte dugg ca neexuma moom bébé Aïcha animatrice bi di insister mu ne ko jugal sama kaw lal te nga génn sama nekk animatrice bi di insister mu ne ko barke Serigne Babacar Sy dama lay dóor boo génnul sama nekk manjalax la génne la teg la ne ci noonu animatrice bi taxaw di tàggatoo waaye mujj na jàmm la ñu mujjee ñoom ñaar bébé Aïcha di ko xamal ni ko man ak yow jeudi la ak vendredi amul bis waaye tamit maa ngi ñaan sénégalais ñu daw abonné ci seen seen bile ñëpp daw di leen topp te di leen seetaan ndaxte loolee nekk na luy am solo ndax jigéen mooy ki ko moom tey tamit nag jàmbaar la fàkki tëdd la mu ngi liggéey mu ngi contribuer ci développement bu Sénégal moom Bébé Aïssa foofee la mujje ñu bari di ko tuddee départu gaynde arrivé muus Aïssa Thiam arrivé na foofu la ca 2STV moom Aïssa Thiam actrice ba nekkoon ci infidèle te mu siiwoon fa loolu le gannaaw ba mu nekkee ci infidèle ba génn fa ci la daal di dem ca Seneweb Seneweb googee a a mag ci Sénégal Aïssa Thiam foofee la daal nekkoon ay ati at nekk fa ab présentatrice am na ab bu mu daan présenté chaque suba teel ba ñu jékki-jékkee séenatuñu ko gisatuñu ko déggatuñu ko sa Thiam jékki-jékki nañu ñu gis ko ca 2STV ca plateau bi nga xam ne moo di After Plus bu raxu di di defar moom ak i chroniqueur am moom Aïssa bokk na ci chroniqueur yi nga xam ne ñooy nekk ci boobule plateau ca 2STV mu ngi firndeel ni Aïssa léegi fot ci télé ba mu nekkoon muy Seneweb dem ci beneen télé bu gën a mag muy 2STV kawteef mooy li xew ci cité xandaar fa nga xam ne sorewul dara muy mbëbës fa ñuy këpp li nga xam ne moo di mbalit ya cité xandaar li nga xam ne mooy la fa xew ab kawteef dëggantaan la dañu fa fekk juróomi xale yoo xam ne ay bébé lañu seeni koor lañ fa daal di fekk maanaam seeni néew loolee nag délégué de quartier bi mooy ñi ñu koy expliqué bu ci nekk ak la ko fi indi loole lépp jot na koo révélé li nga xam ne moo di enquête yi nga xam ne police jot na ko joy def daal dinay indi ñi nga xam ne ñoo fa indi bébé yi képp koo xam ne taqe nga ca laale nga ci duut nañu la baaram ba am na ca benn étudiante boo xam ne moom bokkoon na ci ñi nga xam ne dañu faa jur ab doom ba noppi indi ko ci boobu lépp mbalit daal di ko fay sànni foofu la ci seeti xandaar ki nga xam ne moo di délégué de quartier bi nee na insécurité bari na fi loolu leen ndaxte lu baree bari ay buujumaan dañuy fiy faral di nekk moo tax sàcc gi comme tulleeg màlle agression bi comme tulleeg màlle lii nag insécurité dëggantaan la ñi nga xam ne ñoo fare ci gox ba ñëw nañu ba ci moom di ko jooytoo ko jàmbat li nga xam ne mooy xew ci quartier bi waaye moom lenn la leen tontu mooy yëf yi man kot man dong munuma ci dara ndaxte aw ma doole joojulee état du Sénégal kott mooy li ci mën dara te ñoom wax naa leen ko waxati leen ko yuuxu naa fu nekk waaye kenn dégluwuma dañu maa tànqamlu dafa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 may lancer un appel